nga ne waa pur ñu ne pur pur pur de que demoon laaj yi sax kenn gisaatu ko ba léegi Aliou Mamadou Dia fa lañ gisatuñu ah, kenn gisatu ko nga ne Amadou Ba ñu ne Amadou Ba fi ñu toll nii de daggatoo si digg bi Amadou ndax leen amoon dooleem la moo tax mel opposition bi dañu am véritablement crise de leadership moo leen topp mhm. te loolu nag pour man bu ñu jógee ci élection législative yi mhm. dina tax véritablement ñu xam ban opposition la ñu am mhm. voilà ñu li waxtaan bi ba tey euh, bi yoon nag euh, ci mbirum euh, député bii di Guy Marius Sagna la ñuy daal di waxtaane moom mu nga xamante ne dañ ko agressé dimanche bi ñu weesu fële ci Lomé ci ab rencontre bi nga xamante ne militant ak responsable DMP ñoo ko doon amal ca Togo ci ab invitation boo xam ne dañ ko ko daal di jébaloon moom nga xam ne sax député la woon ci quatorzième législative bu ñu génn waaye itam la fële nga xamante ne moo ca CEDEAO mu mel ni am na ay mbir yoo xamante ne jot na cee sax am ay euh, gaañu gaañu mais heureusement plus de peur que mal moom euh, euh, Guy Marius Sagna moom nga xam ne sax nekk na ab panafricaniste bu ñu ràññee waaye sax laataa muy nekk li nga xamante ne moo di député nekkoon na ku ñu ràññee di xeexal li nga xamante ne moo di Afrique waaye dëkk ba nga xam ne nag la demoon dafa nekk dëkk boo xamante ne dafa xaw a am particularité di di dëkk boo xam ne génn ci li nga xamante ne euh, moo di zone franc CFA waaye itam nooteel bi nga xamante ne euh, jamono ji réew bu Sénégal gis nañ ne euh, mu ngi koy démarqué par rapport ak certains pays yi nga xamante ne ñoo nekk ci Afrique de l'Ouest ban jàngat ngay gis ci loolu Guy Marius Sagna mi nga xamante ne ma xaw nañ koo malmené foofu ca Togo bàyyi moo waaw xanaa di di naqarlu rek wax dëgg yàlla di di métti lu bu baax a baax li nga xam ne moo xew mm-hmm. Euh, di wax rek ne Guy Marius Sagna nit la koo xam ne wax dëgg yàlla yàlla da ko may day xeexal nit ñi moom foo ko fekk rek xeexu jàmbur. Mhm. xam na aussi nu muy xeexee euh, te li muy wax it day day day jaar yoon maanaam lu lu la réer lu ne bu ko waxee bu paree doo ci laaj dara dafa xam li muy def. Mhm. waaye dafa toll foo xamante ne ni léegi euh, li xewoon bërki démb ci député yi CEDEAO yi. Mhm. ndaw sa su dëkk Côte d'Ivoire. Mhm. daal di am ak moom ay wax. coow li bari. loolu dafa yóbbu turam ci ba mu génn ci bitti. Mhm. ba nga xam ne su fekkee ñoom am nañu dara lu nekk seen xol lu ñu ko mën a créer. Mhm. su su su demee fu mel noonu day tumuraanke. mën nañ ko jaarale foofu nañ ko jaarale foofu te bu boobaa ñooñu sax mën na am ñoo koy def mën na am ñoo koy def. waaye buñ koy def dañ koy boole ci da day dañ koy jaare ci ñeneen ñoo xam ne ay nit lañ ñoo xam ne doo leen mën a identifier. wala moom dootu mën a assurer protection. donc comme waxam dafay génn li muy wax dafay dem ci Afrique yëpp buy demati ci lu mel noonu man je préfère que mu bañ sax dem fa tey wax. wala bu protection bu doy doog voilà parce que gii dañ ko soxla nag wax dëgg yàlla. te yii wóorul. Mhm. waaw yii wóorul mënoon na fa. gaañu gaañu bu gën a metti loolu. Mhm. mais fu buy dem daal mu dem ci loo xam ne day ànd ak sécurité état bi nga xam ne moo nekk foofu. Mhm. wala comme ni nga ko waxee mu yóbbaale ay garde corps am. Mhm. maanaam mu bañ a amati confiance ci peuple africain yi. loolu laa bëgg a wax. parce que li muy def léegi àgg na foo xam ne. am na fu muy laal daal am na fu muy laal loolu mooy waral lii nii. Euh, peut li muy li muy xeex arrangé wul pays bi nga xamante ne moo di Togo moo tax. peut-être yenn yi su euh, fekkee mbir mi ci pays bee ko def. loolu lay wax ji. def gi moom fu nekk mën na fa jóge. parce que nit ñi dañuy dem comme ni gii di demee. mën na am beneen réew lañ jóge mën na am ci réew boobu ñoo ko def. Mhm. def gi mën na doon doomu réew mi te ki leen ko defloo dëkkul ci réew mi yëpp mën na mhm. nekk. Mhm. voilà di jaajëfalaat bu baax a baax ñi nga xamante ne ñooy safoo ànd ak su ay programme rawatina seen émission bi nga xamante ne euh, moo di le soir bu commencé dañuy bàyyi seen activité yëpp euh, ñëw jàkkaarloo ñu ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax euh, Philippe Auguste Coly ñu ngi lay ziar Demba Diatara merci beaucoup Philippe Moussa Ndiaye également Habib Sarr Babacar Diagne Baye Ciss Habib Sarr ak ki nga xamante ne moo di Cheikh Tidiane Wade depuis Saly ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Alioune Omar euh, Vall ak maman Siré Tamba aussi gis nañ ko ñu ngi koy jaajëfal bu baax maman Ndeye Awa Ndiaye merci beaucoup euh, aimé leen ngeen partagé jàngi saaxu également ñu ngi koy jaajëfal euh, Jabel Yacine bu Amina merci beaucoup Moustapha gis nga ko comme ni nga xamante ne laaj naa ko léegi suñu invité di Baye Mor gis nañ nekk yu Marie Sagna di député fële ca CEDEAO ñu mel dañ ko agressé woon dimanche bi ñu weesu fële ca Lomé ci ab invitation bu mu amoon foofule mu mel ni nekk ab ab euh, pays boo xamante ne ci Afrique de l'Ouest la nekk mais pays bu spécial ndax régime ba nga xamante ne moo fay dundu jamono ji peut-être ki nga xamante ne mooy di Guy Marius gis nañ xeex bi nga xamante ne mu ngi koy euh, xeex en tant que panafricaniste. waaw dañ koy dañ koy naqaru d'abord. Mm-hmm. li nga xamante ne sunu doomu réew Guy Marius dundu dund na ko la ci Togo ñu koy ñaawlu parce que nag ak lépp lu munte am Afrique la te doomu Afrique warul génn warul dugg dugg biir Afrique. ñu ko fay toroxal wala di ko mhm. fitnaal dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax mhm. je pense que gouvernement au Sénégal réagir na à mhm. travers ministre de l'intégration l'intégration et des affaires étrangères walla réagir na ñaawlu li nga xamante ne mooy euh, moo am fële ca Togo maintenant niñ koy niñ koy niñ koy jàngatee nag mooy da ngay gis ne dafa am dëkk yoo xamante ne tey jii ñoom France France Afrique ba daan am maanaam diggante France ak doxalin bu njëkk ba ñoom nga rey leen moo gën nga génne leen si te du ñu jàpp ne Sénégal dafa am benn yoon dafa mel ni ku yor torche di mhm. nit mhm. xam nga ko aj da bañ ko téen mhm. waaw Sénégal fi ñu toll dañu dimba naan kaay leen ngeen xool ci kaw li ñu téen loolu moo tax fi ñu toll nii dëkk bu mel ni Cameroun dëkk bu mel ni beneen dëkk bu mel ni Togo dëkk bu mel ni Côte d'Ivoire. Mhm. ñoom kalaasu Guy Marius bi mënuñu faa am jàmm. du leen arrangé. parce que d' abord président ya fa nekk ñoom. Mhm. seen taxawaay bëgguñu ko parce que mhm. bëgguñu changer seen diggante bi dox seen diggante ak France. bëgguñu tamit bàyyi nguur gi. mais dictature gi ñuy gi ñuy imposer sax seen réew yi. waaw mais mais loolu la xam xam xam nga lu war a lool sax tamit. boo jëlee xam nga Togo tey jii. ah Togo de kaam dafa xaw a spécial. non kaam dafa xam nga lu tax parce que ka fa nekk président di Faure Gnassingbé depuis 2005 ma nga fa 2005 la am premier mandat 2010 deuxième mandat 2015 troisième mandat 2020 mu am quatrième mandat mi ngi ci quatrième mandat papa mi nga xamante ne mi ngi jël nguur gi 1972 ba 2003 ci nguur ga la deewee. Mhm. ci avion bu ñu koy yóbbu France di ko rawal di ko rawale pour faji ko c'est la faatoo ci avion ba bi mu faatoo seen constitution dafa ne euh, président assemblée nationale dafay jël nguur gi pour 60 jours mu dem élection. Mhm. militaire yi daal nguur gi. bi ñu këppee nguur gi ñu ne président assemblée nationale nekk fi loolu lañ prétexté daal di gaaw gaaw jël Faure Gnassingbé mii tey nekk président ne yaay président de l' assemblée nationale kon yaay ñëw léegi nekk suñu président léegi bu ñu ko ne yaay nekk suñu président doyatul de ñu ne ko non seulement soixante jours la ñu war dem élection waaye déedéet da ngay ba sa mandat papa jeex ñu doog a dem élection <laughs> dafa ñoom une dictature nag <laughs> gis nga loolu africain man léegi nag loolu moo tax ONU daal mhm. mhm. ba fóot daal di mujjee daal di jalax leen nguur gi teewul. Mhm. am am nañ seen i pexe. Mhm. dem election daal di koy gagné. Mhm. ba mu ko gagné ba léegi mënul fexe ba jóg fa. léegi nag bu fa Guy Marius demee mu gis alternance bi am Sénégal amaat fa amati fa waa DCMP invité ko ñëpp ne. Togo dafa war a dund alternance parce que dañoo sonn. Mhm. parce que kii jël na 38 ans kii jël na presque 20 ans. daf ko royoo ñu ñu ngi fi bëgg a def 60 ans doom. Mhm. léegi nag ñu ne gii mi bu fi ñëwee menace suñu. léegi nag il faut que nag ñu fexe ba gii daal di abal ñu. Mhm. rapidement loolu moo indi coow li. mais nag da ngay comprendre ne dafay jëm a géej gi ak ay loxoom. parce que ku nekk dem na. ani Mugabe moo fi gënoon yàgg ñëpp ku ne ku fi toog ak dictature ak lu mu munti doon lu mu yàgg-yàgg bés day ñëw nga abale te vent bi nga xamante ne mooy suuf la indi alternance munu koo freiner day sonal boppam rek tôt ou tard bés dana ñëw mu daal mu daal abal te te te fa la jëm nii eh, moo tax euh, man dama koy encouragé. moom da xanaa daa xamul Guy Marius Sagna de. non xamul ñu def loolu. waaw Guy Marius Sagna caaxaan du ko delloo ginnaaw de. Mm, xamul Guy Marius yi nga xam ne daf koy porté ñenn ci africain yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal ba sax ñoo xam ne duñu ay africain combat boo gis Guy Marius Sagna mi ci. Hmm. et moom ci logique la nekk parce gis nañ ne même fekkante ne jamono ji nguur gi nga xamante ne moo fi nekk daanaka bokk na ci ñi leen xeexal mais n'empêche depuis ba ñu toogee ba léegi yaa ngi gis ay question écrite yi nga xamante ne mu ne ñoo di fële ci assemblée moom engagement moom amul amul luñ ci xool sans faille la loo ko mënti waxal moom li mu li mu li mu bëgg a def daf koy def vraiment mhm. teg ko ci démocratie ak mhm. euh, lépp respect ci li nga xamante ne mooy euh, mooy mooy mooy liberté nit ñi mhm. loolu lu am solo la moo tax ma jàpp ne daal na ñaawaay boo xamante ne euh, gàkkal na deru plus jamais ça non plus jamais parce mm-hmm. que boo xoolee maa ngi ko doon expliquer ma ne euh, da ngay gis toujours am ay kilifa mais Mélenchon ñëw na fi mm-hmm. indi indiwul benn posé benn problème France amoon nañ seen benn kilifa damay fàtte tur bi mu ñëwoon fii dem siège yu Y'en a marre ñu recevoir ko boobu euh, Abdoulaye Wade mi ngi fi woon affaire yaa ngi métti tàng jër mu ñëw fi ñu recevoir ko Parcelles Assainies mais kenn da ka faa fekk ni ko génnal dëkk bi mm-hmm. donc pour man am na yoo xamante ne boo yoree dëkk il faut ngay jël hauteur di moytu. te sax. voilà ci def ci dugub yu ni mel ne dañoo dañuy yàgg ci nguur dañuy tiit xam nga ñun dañuy dañuy am benn paranoïa. bu ñu même man a wax. est jóge woon Gambie waa mu jóge Mauritanie mën naa am dana gën a néew danger. ci moom mais Sénégal ak li fi xew waaye Sénégal vent de rupture bi nga xamante ne bëgg a commencé Sénégal ak ak ak mm-hmm. a marre ak yeneen ak yi xam nga xam nga loolu Y en a marre dundoon nañu ko en 2015 fële ci RDC RDC demoon nañu fa mooy ba ñuy jàpp Fadel Barro mm-hmm. ba ñu leen jàpp parce que boobu dañoo demoon di installé ji eh, cellule bu ñu wax waa film bi mm-hmm. film bi mooy sifflé si seen langue yi foofu noonu euh, RDC film bi lañ doon teg ñu àndoon ak waa Balai Citoyen ñu jàpp leen boobu bi ñu leen di jàpp boobu Joseph Kabila moo fa nekkoon. Mhm. Joseph Kabila di doom tamit ci comme kii tamit ki ki wutu kii bi ci Laurent Désiré Kabila. doom mhm. moom tamit euh, nguur gi ci ci ci baayam la ko jëlee. Mhm. Euh, tey ji anamu dem na Etienne Cissé Kidi moo fa nekk kon c'est pour vous dire que ne tôt ou tard da dem. moom ma leen doon téye 2015 tey ji jo jóge na fa Etienne moo fa nekk donc c'est pour vous dire que rek. est-ce boobu loolu dafa xewoon ba tax ñuy doon tuumaal Wade ne moom it doomam lay bëgg a jox Sénégal. waaw boobu boobu dafa xewoon nag boobu ku puus rek daal di daal di indi sa doom waaye gis gis ne moo gën a nooy mm-hmm. après et puis mm-hmm. ñoom ñi jiite nguur bu ñu amee doom bu dëgër nii rek mm-hmm. dañuy gis ne war na leen a mën a remplacer parce que xam nga nguur nguuru Afrique yi nii li ñuy yàq léegi bu sa doom ñëwee du topp kenn. bien sûr waaw bu sa doom ñëwee du topp kenn. dictature yi. Mhm. boo xoolee ki si ëpp dictateurs yi autant pour moi. Mhm. dañu bëgg seen doom wutu leen. wala ñu yàgg ci nguur yenn yàgg yi. Mhm. Idriss bi ak doom ji. Gnassingbé Faure euh, euh, Ayadama ak doom ji. koo gisaat tamit <coughs> da ngay da ngay préparer sa doom yi loolu moom yàgg na yàgg yàgg na si ñoom ba nga xamante ne Kabila ak doom ji donc ñoom ñëpp sa c'est comme sa boo yàggee ci nguur moom mhm. da sa doom rek moo la mën a dimbali waaw ah, voilà ñu daal di wéyal li euh, waxtaan bi xam naa ne moom président africain war nañoo def benn constitution boo xamante ne Afrique gi yëpp ñoo koy daal di tënk boo amee ñaari mandat rek nga dem bàyyi mandat yi nga xamante ne dañ koy faral di si am na xam ne moom fekk jëleewuñ leen ci yaakaar naa ne duñu génn ba tey suñu invité di Baye Mor Sarr bokk Pastef bu Bergamo tem jamono ji nag la ñu nar a waxtaan bu yaatu ak moom ginnaaw ba ñu tënkee actualité yi ba noppi nekk na ku ñu ràññee ci li nga xamante ne euh, moo di xeexu Pastef bi euh, ci ay audio sax lañ ko doon gën a xamee ndax kanamam daanaka léegi la ko nit ñi euh, commencé ràññee wala sax xëy na léegi